viol lañ doon topp Sonko menace de mort lañ doon topp Sonko comme loolu amul nañ ko acquitté Ousmane Sonko bokk ci élection yi parce que réew mi problème bi fi am yëpp du ñaari problème benn problème la mooy jenn jëmm ju ñuy wax Ousmane Sonko lañu ni du bokk ci ci PAM yi diw du bokk moo taal Afrique yëpp Côte d'Ivoire diw di bokk ko taal buñ naxante. kon monsieur le président de la république man sa frère El Hadji Malick Dramé ñu xamante boo xam ci condition yu condition yu jafe lañu xamante te yow xam nga ni man du ma sa ennemi te billaahi wallaahi tallaahi ñi la wër gënuñu ma laa bëgg loolu laa gëm bu la kenn dugal ci lii dellul ginnaaw fii amoo fi ku la bañ ñëwal ñu waxtaan ak ak yow man tàllal naa la loxo ñu waxtaan pour jàmm am ci réew mi lii ngeen yëkkati lii ngeen yëkkati réew mi d'accordu ci bul déglu ñi lay wax ay force occulte ñoo nekk ci réew mi réew mi force occulte amu fi réew mi rebelle amu fi réew mi ku déstabiliser république bi amu fi réew mi ñoo d'accordul ci ni réew mi di doxee donte ñàkk a d'accord ci réew mi di doxee warul cautionner violence man mm. d'accord ma ci mm. violence ak bor bu mu mën a jógee parce que man du ma cautionner violence sama responsabilité dépassé na loolu waaye wolof nee na nit bu demee ba xamul fu mu jëm day dellusiwaat son excellence monsieur le président de la république man imam Dramé may wax ak taan ak yow. bul déglu ñi lay wax ni tëjal Ousmane Sonko ñooñu amuñu information tey pour solution am yomb na. barricade gi ñu barricade kër Ousmane Sonko nañ ko dindi delloo ko ay téléphone mu man di jokkook ay nitam nit ñi di dugg këram di génn ñi ñu jàpp ci kaso yi ñi nga xam ni ay dossier politique lañ leen jàppee ñu bàyyi leen ñu ñibbi man duma ma peledeel kuy yàq kuy yàq man du ma la peledeel mm-hmm. kuy rey du la peledeel waaye koo xam ni jàpp naa ni ay wax rek lañ la jàppee wala ay pass post Facebook ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër ñu vider prison yi parce que prison du solution am na réew yu ñu ëppoon ay prison fuuf te ba ñu jaamaarloog seen peuple réew yooyu dañoo ndërmeelu man li may wax damay wax je parle à connaissance de cause hmm. man Égypte laa nekkoon Égypte ñetti nit ñoo compté ñaar ñi ay policier lañ ñoo ñu ëppoon ay kaso gënoon ñu koo bari le bañ demee ba peuple ba sonn ba ñu fippoo nguur ga dafa daanu te man gëmuma ni diw dégage man bokkuma ci ñi ci gëm loolu ah. bëggoon gëmoo Macky dégage. déglul waxuma Macky dégage diw dégage laa gëmul man man xama lu ma gëm. Mhm. malgré erreur yi Macky Sall def dafa bari loolu laa gëm te yàgg di ko wax te ba ma koy wax bari na ñuy wax ci réew mi ñemewuñ ko wax parce que man li may wax ci caméra yi laay wax ci pale bi moom laay wax ci biti. parce que alhamdulilahi rabbil leen am naa dépense nag bu kon ñu dégloonte man waxuma koy par parloo tey mm-hmm. ak kuy wax pour lu neex Sonko wala Macky Sall man sama responsable dépassé na loolu man Sonko moomu ma Macky Sall moomu ma te damaa gëm ni xoola ay nawle laa leen jàppal te am na foo am bu ñu ma fa fekkee dañuy toog ci suuf loolu la yàlla dogal kon ñun sëriñ si waruñu am complexe pour mën a wax ak ñii nañ waxante dëgg kon président Macky Sall porte de sortie bi lenn la. Mhm. prisonniers yi bàyyi leen ñu génn man maa lay jox ay garanti man imam Dramé ah bàyyi prisonniers yépp ñu génn sans condition ñaareel ba mooy Ousmane Sonko candidature am loolu demande sociale la sénégalais yi ñoo ko soxla boo ko waxee bu dee suba nga ko wax réew mi dal bu dee ngoon nga ko wax réew mi dal. lii rek mooy dalal réew mi monsieur le président mais ay force occultes dugg ci réew mi yaa ngi dégg ñi la koy wax dañ lay nax man duma la nax parce que nangu naa ni am nga loo def ci réew mi ah man bokkuma ci ñi gëm ni mag Sall def fi dara am na bilan matériel loolu mooy dëgg mais sénégalais yi justice bi ni muy doxee dañ cee gisul seen bopp lii mooy la vrai débat ñi naan Macky Sall def fi dara man waxuma loolu. parce que am na lu mu fi def lu mu ñu coûté nag c'est discutable parce que ñu lépp fi la fekk kon président dama bëgg nga dellu siwaat pour tënk dellu nga nga toog ak président Ousmane Sonko yaa ngi dégg ngeen wax ngeen fàtte seen jëmm yi man de su ma leeroon ne Ousmane Sonko dafa tooñ du ma ànd ak moom parce que bi ma koy xam am naa lépp soog koo xam loolu mooy dëgg kon président ba léegi rien n'est trop tard pour ñu waxtaan traque bi ngeen di traque di jàpp nit ñi du régler problème loolu musta régler benn problème kaso yi fees na nañ fii de kaso yi nit ñi ñibbi ñu toog ñu waxtaan réew mi waxtaan moo fi musa am man déclaration bi ma koy def tàgguma kenn parce que man sama responsable dafa dépasse di tàggu nit fii ci réew mi du sëriñ du politicien nag man naa ormal ku nekk te man ay casquette politique ki tënku ma nag bu caaxaan jeexee dëgg des réew mi moom a tënk kon président nañu toog ñu waxtaan. jërëjëf. yaa ngi dégg. jërëjëf waxtaan bu amee. pour tënk rek. lii may wax nag Sonko santuma ko ah. Mm. barke Cheikhou Tidiane Sonko santuma ko Pastef santuma ko man maa jël sama responsabilité wax ko waxtaan wi nag weesuwul rek Sonko moom day bokk réew mi luñ fi mën a waxtaanee te nanguwuñ ni Sonko day bokk barke Cheikhou Tidiane du jur jàmm. yaa ngi dégg liñ fi mën a waxtaanee te ñu ne ci kaso yi génnewuñ leen jàmm du am ñii la wër naan jàpp ko jàpp ko ñu ci bari tey ña nga mbuur tëdd loolu looloy dëgg président ñi la doon wax jàppal Sonko ñépp a nga mbuur tëdd ci ay hôtel gisoo leen boo gersoo mu fay sàll ngay gis ak Amadou sàll loolu mooy dëgg man muy wax am naa information. ñu jàll ci beneen point ma daaneel. nga bu la kenn gëmloo ñi laay wax naan sunko du bokk. Sonko mënoo fee organiser ay élection yu mënta bokk loolu mooy dëgg lii mooy dëgg kon monsieur le président encore une fois man sa frair parce que man gëm naa ni boo nekkoon ci situation bu jafe di ma gis man man ba nga faloo nga gisoo ma ba tey parce que wóoruma ko falu man man kuñ tooñ moo ma ñor yaa ngi dégg kon del siwaatal ñu waxtaan Ousmane Sonko sa frair la yaa ngi dégg mënta rendi ginaar ku la loo ni da dalay rendi waxul dëgg ku la gëmloo ni Ousmane Sonko dalay rendi billaahi waxul dëgg man xam naa Ousmane bu baax fréquenté naa ko te moom xam na ni moomu ma dañoo ànd ci dëgg wax ji mu gudd mu gàtt mooy man jàmm rek laay woote mhm. discours d'apaisement discours pour am solution solution nag ku ko bëgg wax naa la ko société civile bi mhm. nañ am courage ñu bàyyi ñu bañ ku leen manipuler ñu am courage comme ni courage bi alintin am man rafetlu naa ko journaliste yi am leen courage buñ parparloo ba suñ réew dem ci kaaw yaa ngi dégg xeex bi am ci diggante force de l'ordre yi ak civil yi man rafetlu ma ko ñii dee bu dee force de l'ordre yi ay sénégalais lañ bu dee civil yi ay sénégalais lañ kon Sénégal moo ci perte tey buñ nangu àdduna bi di ñu reetaan tey le monde entier yëpp ñu ngi toog teg seen teg seen. ay projecteur Sénégal di wax ni Sénégalu Alaaji Malick Sénégalu Cheikh Ahmadou Bamba Sénégalu Cheikh Omar Foutiyou Sénégalu Aline jaata Diatta Sénégalu Hyacinthe Thiandoum Sénégal moo mel nii loolu c'est honteux ci képp ko xam ni bëgg nga réew mi kon nañ toog waxtaan man loolu laay woote. jërëjëf imam gi da ngeen kàddu yi yéen ñi xam ne yéen a ngi suivre sànq ba léegi. Euh, di fàttali ba léegi ñi ngi ki xam ne moom mooy Imaam Dramé Imaam Dramé nekk kilifa tamit si réew mi saa yu réew mi xawee am yu ni mel da koy gis mu mu mu si daal di artu Imaam deuxième point boobu daaneel yow euh, moom mooy euh, li xam ne moom arrestation wu sa naataango Cheikh Bara Ndiaye ñu xam loolu la moo si doon sa jàngat. man li ma gëm wax naa ko ci biir déclaration réew mi situation fi mu toll nii ak ni mu tàndee boo continuer di def ay arrestation mooy yow yaa bëgg gën a tendul situation bi fi mu nekk nii ay arrestation mënu koo regle fi mu nekk nii li ñuy tuddee cessez le feu d'apaisement ci ñaari côté yëpp te bi ci jiitu nag pour apaisement bi jiitu mooy ñu arrêté arrestation yi parce que booy yi fii ñu ngi gëm ni dañ leen di jàpp di leen traqué ñu arrêté xeex bi ku doon wax ba xotti ko dañuy lànk kon arrestation Cheikh Bara Ndiaye mhm. c'est regrettable man d'accorduma ci ay arrestation ñaata nit ñoo nekk ci kaso bi est-ce que tax na xeex bi arrêté kon nañ arrêté arrestation yi ku mel ni Serigne Cheikh coro Mbacké mhm. for naa ko ci wewu bëy xaw ma am na wala amul ñu ni dañ ko ñu ngi koy traqué pour jàpp ko mhm. loolu bu dee am na nañ ko teg ci suuf du jur jàmm président mhm. ñi la wër bu dee dañ laa bëgg a dimbali nañ la jox les vraies informations tey fi réew mi toll ay arrestation du ko régle tey fi réew mi toll toog ci taabal rek nga wax jox ñu ñu wax jox la yaa ngi dégg moment bii ku moomul sa bopp doo wax. kon nañ ko bàyyi Cheikh Bara Ndiaye. non maa ngi ñaan ñu bàyyi ko. Mhm. Cheikh Bara Ndiaye doomu daara la am xalaatam di ko wax ci réew mi comme ni ko Pape Malick amee nekk ci wetu mag sàll di ko wax ci réew mi mhm. réew mi tey li ko taal du problème mu Sénégal yi dañoo xiif de. wala dañoo amul lu ñu lekk wala dañoo amul emploi réew mi lu ko taal mooy ay décision justice yoo xam ne nii amul benn sénégalais bu conscient bu ci ànd kon buñ continuer di activer machine bi muy dal ci kaw sénégalais yi mm-hmm. nañ arrêté arrestation yi te loolu maa ngi koy ñaan président de la république parce que man comprendre naa responsabilité président de la république yombul mën nañ laa manipuler à tout moment mën nañ laa jox fausse information à tout moment kon monsieur le président man sa frère encore une fois maa lay woo nga génn nga wax ak sénégalais yi. un discours. un discours mature. Mm-hmm. ba pare dëgg. discours boo xam ne ku ko dégg xam ne dëgg la mu bañ a yem ci discours mais mu nekk ay jëf tey xaaratuñ ay discours ci Macky Sall bu dee dañuy waxante dëgg ay jëf la ñuy xaar ay jëf yu concret libération les détenus politiques ñu bàyyi leen sans condition. Mm-hmm. parce que moment wu crise bu amee boo ko bëggee régler doo teg benn condition. bu ko defee ñu bàyyi ñuy jàpp ci kaso yi kër Ousmane Sonko giñ bari gàdde ñu dindi ko. dindi yaa ngi dégg bu ñu ñaan Ousmane Sonko non ñu bari ñu dindi ko ñu garanti Ousmane Sonko ni ko da ngay nekk candidat garanti bu leer bu laajee ñu bind këyit jox kil sëñ Muntaxa mu téye bind këyit jox labbe yi ñu téye jox xalifa généraux yi ñu téye Ousmane Sonko téye gëm naa ni lii buñ ko defee usmaan Sonko dina génn wax kenn ku ne dellu fa nga nekkoon. waaye bu lii amul man gëwuma gisuma fi solution de solution man solution moom a tax di wax moment bi tappet yu bari daw nañ bari na ñuy coow réew mi ñoru leen bu réew mi tàkkee ñuy dem Maroc tëdd fa man du dem Maroc du dem Amérique man si sénégalais je suis fier d'être fier d'être sénégalais man Sénégal mooy daw sama deret ku mooma àndal Sénégal mooma la gënal réew mi amuñu droit di ko yóbbu ci kaw waaye nag injustice rek mooy yóbbu réew ci kaw tamit Mhm. parce que nag man du ma dugg ci ay détails waaye ñu lépp fi la ñu fekk kon nañu toog ñu waxtaan waxtaan rek moo mën a régler problème bi tey. Imaam euh, par rapport tamit li nga xam ne moom mooy euh, mbirum Pape Abdoulaye ture ñu gis démb image yi euh, damay jégal rek ñu gis démb image yi. ñu wax ne que c'est la police wala ce sont des nervis parce que nekkul information boo xam ne ba léegi am nañ si li nga xam ne moom mooy firnde gis nañ image rek muy véhiculé mu doon jëf ji nga xam ne tey kenn rafetlu ko ma doon sénégalais nga doon ak keneen ak keneen nga xam ne mu ngi ñuy suivre doon Sénégal lu ñun comme si nekkoon sa mbokk du la neex. Mhm. en tant que imam tey mbir moom noonu ba nga ko gisee. man li ma gëm li ma xam di ko wax ku ma yàgg a déglu it même bu ñu àndul nga nga nangul ma ko man violence fu mu mën a jóge dama koy condamner. Mhm. violence fu mu mën a jóge dama koy condamner bu jógee ci opposition bi dama koy condamner bu jógee ci kaw pouvoir bi dama koy condamner réew mi ay nervi Ah, nervi amu fi place. nervi amul place ci opposition waaye nervi amul place rawatina ci pouvoir réew mi am nañ fi ay force de l'ordre képp koo xam ni dangaa ngaa def naka su dul noonu nañ la bàyyeek force de l'ordre yi bu bu dee corriger day am ñoom ñoo la war a corriger. mais du ay nervi man damay d'une manière générale laa wax. parce que mm. bëgguma personnaliser. Okay. le débat violence bi yëpp la ñuy ñaaw ñaawlu fu mu mën a jugee waaye loolu yëpp rek. il faut ñu cesser la feu cesser la feu bi nag waxuma mooy Macky Sall moo ko mën a def tey moo mën a jël ay responsabilités parce que moom lañ dénk réew mi nag réew mi dénkuñu ko Ousmane Sonko. Mhm. moom moo war a jël tey ay responsabilités am génn taxaw wax ak sénégalais yi discours boo xam ni ku ko dégg xam ni bii dëgg la balay def discours mu bàyyi ñu bari ni ñibbi leen seen kër sans condition bari gàddu kër Ousmane Sonko bi kat na dëñ. parce que jaaduwul. nit mënoo bari gàdde këram ni kenn du dugg kenn du génn te benn juge bindu ko loolu lu waay jàngadi jàngadi xam nga ni jaaduwul nañ wax dëgg yàlla dëgg la bëgg yaa ngi dégg. Mhm. man mënumaa comprendre ab chef de l'opposition ngay bari gàdde këram te amul benn këyit bu ko bind loolu injustice la nañ waxante dëgg Macky Sall ñi ko wër bu dee dañ koy dimbali buñ ko defloo. loo xam ni day tax nit ñi gën koo bañ te tey li déclenché combat bi dëgg mooy barricade gi ñu barricade kër Ousmane Sonko nañ ko dindi immédiatement parce que du jur solution. Mm-hmm. li wax ni Ousmane Sonko ñaari at lañ koy tëj caaxaan la. loolu koy def nañ ko ba pare. loolu dañ koy dindi parce que chambre criminelle képp ko àtte duñ ko mun mun ko dindi loolu waxi caaxaan la. Mm-hmm. gis nga jàmm moo ëpp doole ay chambre criminelle yi ngay wax nii. ay justice yi ngay wax bala nga koy tal day fekk réew mu am jàmm. fii lu fi nit def mën nañ koo dindi ñu ko def ay nit lañ du alquran du bible fii lu fi dul alquran du bible manees na koo dindi teg ko nële pour jàmmi réew mi kon loolu ñuy wax noonu waxi caaxaan la nañ ko dindi fii kenn mënu fi organiser élection yu Ousmane ko bokkul man loolu laa gëm. ba koroog may gis le contraire. Hmm, jërëjëf Imaam euh, émission bi presque daanaka léegi mu jeex dañuy euh, tëjee rek ak question bi nga xam ne sànq bëggoon naa ko laaj par rapport li li nga xam ne mooy réseau réseau yi internet bi ak yenn application yi ne tey dañ ko tëj ñu dégg ministre de la communication mu jot sax bind li nga xam ne mooy benn bataaxal. waaw xam nga man côté boobu dama ciy wax ak responsabilité. Hmm. parce que situation réew mi fi mu toll. Hmm. xëy na ñu yor sécurité réew mi ñoom xëy na. am nañ information yoo xam ne man awma ko. parce que ñoom ci renseignement la ñuy liggéey. Mhm. man moo tax loolu du ko loolu du ci dugg loolu seen domaine la ñoom man daal li ma gëm mooy li mën a dégéné la situation est dégénérée loolu mooy réalité bi. Mhm. li ko mën a désactiver tey situation bu tendue bi mooy fexe créer ay conditions nu mu gën a gaawee ñu toog ci taabal parce que munoo wooteeb dialogue xëy suba dëkk bi di tàkk. parce que dialogue bi am na fa discours yoo xam ne ay discours la yoo xam ñoo taal dëkk bi. Mm-hmm. comme discours bi Ahmed Khalifa Niass def bokk na ci discours yi taal dëkk bi loolu mooy dëgg. Mm-hmm. parce que réew mi mënta toll fii situation bi toll nga naan président dóoral. dóoral wala ñu boole ak diw sax. gëmbal dóor loolu du waxu ku responsable nañu waxante dëgg nit loo bëgg dund bëgg dund ak loo bëgg sa poos diis seetal sa diggante ak sa borom. ana ñu doon wax président gëmmal dóor dag leen a gis tey ñëpp daw nañ président bul gëmm dóor parce que boo gëmmee dóor dóor bi day siwaat sa kaw kon nañu waxtaan man bëgguma dugg ci ay détails li ma wax ni sax ëpp na internet bi hmm. du ma ci yi nañ ko delloo siwaat parce que ma daaneel sénégalais yi hmm. lépp loo def rek xamal lu ñuy jàpp am nga am nga looy waaj hmm. parce que bi ñu bi ñu éliminé internet bi ñu ne ñu ngi Sonko te pourtant kenn jàpp ko loolu la nit ñi nit ñi commencé di wax kon nañ delloo si waat internet bi waaye réew mi ay defar delloo si waat internet du ko rek réew mi lu koy régler fi ne mel noonu Macky Sall moo yor solution ci réew mi du ñaari nit de salon ni muy taxawee rek ak ni muy déclaré parce que le peuple sénégalais peuple bu am tolérance la boo seetloo dañuy topp sa force de l'ordre yi ba jekku leen yëkkati ndox di leen may loolu ñun ñun ñun ñun peuple bu am tolérance lañ buñ ñu sës ci miir bi rek yaa ngi dégg même les forces de l'ordre waxuma am nervi mhm. bandi buñ fay ngay dóor nit ñi mais force de lord boo xam dañ laa formé amoo benn intérêt di tiit tiire ci kaw peuple bi mhm. kon nañu toog ñu waxtaan man loolu ci loolu mooy sama responsabilité mhm. te ci loolu laay woote wàllu démocratie est-ce que mënuñ jàpp ne recul am na li ma wax nii sax ëpp na parce que man <laughs> nekkuma fii pour wax man damay wax pour jàllale message dugguma ci ay détails yaa ngi dégg moment bi tàppet yu bari boo leen dëkkee micro daw nañ man nag du daw parce que man sama maam yi mosuñoo daw. le dernier message lan lay doon. dernier message. mooy mm-hmm. la paix. la paix la paix la mm-hmm. paix. waaye la paix c'est pas un mot. c'est une mode de vie. loolu Hegel moo ko wax dégg nga wax bi mu ne jàmm du lu ñuy wax lu ñuy dund la kon nañ dund jàmm nañ dox ci jàmm te Macky Sall réew mi ay goro ngi fii de ñoo xam ne buñ toogee yow dinañ la wax seen xalaat bul déglu ñii naan la gëmmal dóor. ñii di la ko wax ñëpp ay tàppet lañ ñu ci bari daw nañ tey toogal nga wax ak gor ñi ak jullit ñi fii ay goro fi nekk ak i jullit lii mooy dëgg. jërëjëf imam salaamualeykum wa rahmatullah di jéggalu nag bu fekkee ni wax ji am na dara lu ci lu ci lu ci rëcc. parce que tey sama deret mooy wax. jërëjëf tey ñun mënuñoo am référence bu mel nii di nekk ragal kii ragal àndul ak moom kon man ñii talaate nañ ma ci génne man sama deret man kenn mënu maa xoqatal. man da nga may convaincre mais man kenn du ma xoxotal ñun Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh mooy sunu référence te lu situation bi critique critique dinañ wax sunu xalaat te ku sax ay nopp mën nañoo wax ak yow lii la yàlla dogal kuy par parloo wala ngay wut koo tiital na fi tegg imam Dramé parce que moom amul tiitukaay ba mu juddee la tiitukaayam jeex